Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf ak tàggatim bi am na ci dialogue national bi l'observateur nañu ci dialogue politique bi fa yëf ya tagee ponk yi doon waxtaane démb ñi séq commission politique bi amuñu ci déggoo bokkook Macky Sall ci élection présidentielle yi ak bu Khalifa Sall ak bu Karim Wade journal bi nee nañu ci fii fa la gaañi giitoo Sud Quotidien bind na dialogue politique bi dafa tëju mën nga tëjoo ca coowal candidature bu Macky Sall bi bu Khalifa Sall bi ak ñoo ngi wër caabi ji ñu mën a dugalaatee nit ku ñu xas rajee ci liste électorale yi bu fekkee ay daan dafa jóge ci justice bi tege ci kaw maanaam ay condamnation acteurs yi seq commission bi journal bi ne nañu bëgg nañu it mbiri grâce présidentielle ñu dugal ko ci am na commission technique bu ca war a liggéey tey ji la ñuy liggéey nag bu sottee journal bi gis na ne du jur jàmm ci Ousmane Sonko ak partem bi di Pastef source waa nañu ca seen dajam démb ma ñi fare ci opposition bi fa ñu taxawoon mooy mbiri troisième candidature ci waxtaan wi ndax loolee du débat lijjanti nañu ko ba nuppi société bi ñoom jàpp ne warta demee noone ndax mbir la moo xam ne conseil constitutionnel moo ci mën wax lu leer

résultat yi tukkee ci dialogue bi fa la yam waaye mbiri candidature am ndax day bokk ci élection yi am déet loolee moom ci weeru août ca la ciy ginde peuple bi dialogue du peuple taxaw na vox populi nañu kuréel gi di F24 ñoo ko teg démb lañu ko lancé Mamadou Mbodj ak i gaayam li ñu bëgg moo di tënke ca waxtaan ab mémorandum boo xam ne nee nañu kuy jiite ci réew mi dafay bokk ci li ngay sukkandiku ngir yore ko Sénégal journal l'info bind bu mag fukki fan ak am ci justice réew waaye sa bëgg xeex ba waxi troisième candidature bu Macky ñu bañ koo jëmee kaw bés bi la journée ko du loolee rek la waa F24 na sa ne bu weesoo li ñu bëgg jéebaane ci doxinu justice bi bu weesoo li ñu bëgg jéebaane ci troisième candidature bu Macky Sall démb ba def lancement dialogue du peuple bi wax nañu ci signal bu télévision Walfadjri bi ñu dagg wax nañu ci blocus ba am ca kër Ousmane Sonko blocus boobee am ci buntu naan danañu dem ci cité kër góor gi ngir yeewi Ousmane Sonko ma ñu fa ndar kàpp maître Ngagne Demba Touré ma ñu affecté yóbbu ko ca tribunal bu Tamba te mu jàpp ne dañ ko singilé jàppe ko sanction Arona Sarr xëy na di ci indi ay leeral Arona saar mooy directeur promotion bonne gouvernance ci ministère de la justice li mu ci wax mi ngi ko wax ci journal La Tribune ubbil yéenekaay bi Arouna Sarr nee na maître Ngagne Demba ni mu doxalee dul xel nangu ci état de droit li mu wax ci affectation bi mu ne ay kàddu la yu irresponsable wax la yu tegawul fenn yu waroo lool ak li éthique bu métier bi santaane affecté gi ci moom te xam administration ak ni muy doxee xam ne affectation da caa bokk Arouna Sarr nit ki dafay xam li mu bëgg ab auxiliaire de justice buy soog a pare formation ñu mute ko ci région bu nekk ci réew mi bu ci ay wax amee rek du yoon ndax at mi yépp bés bu yàlla sàkk ñu gis fi ay autorité yu bokk bi coow du dina jëpp ci mbiri Baytula l'observateur nañu Baytula Omar Sané mooy turam dëgg-dëgg mooy ancien militaire gambien bi ñu jàppoon fële ca Bignona bésu fukki fan ci weeru juin ci la ko jàpp démb la ko sandarma yu section recherche bu Colobane defere li ñu koy toppee mooy mbiri espionnage ak mbiri complot am na nag ay mbir yu garaaw te yéeme yu mu wax ci enquête ba yu ca bari mi ngi ci page 7 bu l'observateur dem na bay wax ci enquête ba waxi Pancras DSL ak seen marque bii di Dekakila